ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci fukki accord ak benn yi nga xamante ni dox na suñu digganteeg réew bii di France maanaam dëkk yi France colonisé woon te Sénégal bokk ci. bari nañu ñu interpellé woon ci sujet boobu noonu ndax imaam Alioune Badara Ndao defoon na ci benn jàngat bu am solo mais comme que mënuñu woon reproduire at vidéo boobu que beneen chaîne YouTube moo ko réalisé buñ naan Fafa TV muy bu am solo mun ngeen ko suivre. ñu ne donc nañ ci revenir ci accord secret yooyu noonu nga xamante nii jiitu na sax suñu amum indépendance ndax ñu bari ñi ngi jàpp ni accord yooyu bi ñuy France di joxe indépendance lañ ko signé mais avant ñu am indépendance loo ko France tëggoon après loolu ñu dugal ci yeneen accord yu bees yoo xamante nii dafay tax ñoom waa France di wéy di maintenir seeni domination ci suñu réew yi accord yooyu noonu tollu ci fukk ak benn daan ci ñëw ak po bu ne la lañ ci tënk ak exemple maanaam accord bu ci nekk dañ leen di jox ay parce que yàgg nañ wax ni France pays bu pauvre la bu woon ñun ci dëkk yi ñuy wër di dimbali lay bokk ndax ñoom amuñ dara lañ ne nañ ci lool mooy ay ak manipuler ci parce que si lépp loo xamante France réussir na ko suñu réew yi na ko tàmbale esclavage colonisation ba après indépendance mi ko réussir en complice ak suñu doomi réew africain moo jaay moromi africain am ay esclavage africain moo nangu ñu def ko citoyen français jamonoy colonisation ngir mu jàpp ni moo gën beneen sénégalais bi nekk ci dëkku àll yi bu ngeen fàttalikoo suñu leçon histoire yi temps école jàngal nañu ni Dakar gore Rufisque ak Saint-Louis dañu amoon benn statut bi spécial ña fa dañ leen joxoon ay droit yu bokkut ak ñi nekk ci yeneen dëkk mentalité boobu noonu moo fi nekk ba tey ba boo jigee ci yeneen localité kaw kaw lañ lay woowee wala yow nitu àll nga lii yëpp njeexitalu colonisation la malheureusement nous wuñ ko suñu bop yi après indépendance parce que li tubaab bi bëggoon mooy moom africain signé un accord secret nga na France tey bokk ci puissance mondiale ñun Afrique zone francophone bi nga xamante dañu coloniser woon des di bokk ci dëkk yi gën a ñàkk gën ak ba lu ñu am ci que mu ci askan wi dañ koy ay des depuis indépendance te ñu ko accord bi ñu soulevé ñu signé après indépendance moy réew Afrique yi nga xamanté France daf leen coloniser woon ñu daldi di investissement yi ñu defoon seeni réew ndax ku ne xamné période bobu nonu ñoom tubab yi defar nañ fay yoon tabax nañ fay école ay hôpitaux yi ñu mel exemple rek la leen di jox hôpitaux yi Sénégal principal dantek ba ci hôpital fan biñ koy créé amaguñu indépendance ba ci suñu palais Gaston Doumergue né won ministre français des colonies mo sàkk won ñu tabax ko ngir mu nek résidence gouverneur AOF palais baa ngi nii jamono joju, janok Anse Bernard ba ci architecture bi ñu ko inspiré wo ci palais du Trocadéro nek Paris donc investissement ñu fi defoon yi yëpp période boobu nonu, bi ñu jox suñu indépendance dañ né dañ leen koy rembourser. ku ci melni Thomas Sankara mom, loolu la doon xex. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Philippe Thomas du leen ko fay ndax moment boobu noonu ñoom ñoo ñu coloniser woon yor suñu administration ŋànk suñu économie pour ñoom seeni propre intérêt Thomas Sankara rax ci dolli ne bu ñu nangoo fay xaalis boobu noonu mooy France dina wéy di ñu dominer juróom fukki at jàpp juróom benn fukki wala lu ko ëpp ndax effectivement buñ ko nangoo lépp lu ñu liggéey après indépendance pour suñu réew dañ leen koy verser ñoom France te mooy li am après te bokk itam ci li ñu donc Thomas Sankara visionnaire la woon da doon gis lu ñëwagul.

ñoom France daal di dig Blaise Compaoré ne daañ ko teg ci boppi réew mi te loolu lañ def après ngir bu continuer di appliquer accords yi nga xamante ni signé nañ ko. ñaareel ak ñetteel accord bi mooy nee nañ ñoom France ñooy garantir suñu mone muy franc CFA ñu daal di signé mais politique monétaire boobu noonu dafa am lu mu àndal li mu àndal mooy Sénégal Mali Burkina Faso Bénin bi Bissau Côte d'Ivoire ak yeneen réew yi jëfandikoo CFA téeméer yoo jël ci seen réserve de change juróom benn fukki ak juróom yi dañ koy verser ci banque bu France au début 50 pour cent la woon xaalis boobu ñu koy verser ci compte bi ñu wooyee compte d'opération parce que ñoom ñoo garantir monnaie bi di franc CFA en plus ñuy imprimer xaalis bi di ko defar ba tey jii. 35 pour cent yi ci des ñaar fukki yi dañ leen koy jébbal ñoom France parce que nee nañ mooy couvrir risque financier yi maanaam genre garantie la en 2019 ñaari at ci ginnaaw xaalis bi ñu France amel à travers réserve de change yooyu noonu mi ngi ci 20 milliards d'euros bu ñu ko en franc CFA mu nekk ci 13 000 milliards de franc CFA. koppar gii rek mënoon nañ ci jaaree développé wu ba faw bu ñu suñu monnaie donc il faut que ngeen comprendre lan moo tax yenn doomi aadama yi di ngir franc CFA jóge fi parce que beaucoup na ci li ñu depuis indépendance. quatrième accord bi moy bépp banque centrale bu utiliser franc CFA ñun suñu zone mëna jël exemple BCEAO non seulement France dafay am ay représentants ñuko fay teewal mais aussi chaque année dañuy def ay rapport ci état financier wu bépp pays membre bu jëfëndiko franc CFA ba nopi envoyer rapport yoy nonu réew France Li ci accord ñu li ak France ci la bokk. cinquième accord bi donte après amna luñ ci dindi mais téwul mi ngi exister ba tey ci ene réew yi ci mel Sénégal Côte d'Ivoire ak ñeneen mooy bépp ressource naturelle bu feeñ suñu réew yi France moy nek priorité manam bala ñuy négocier ak benen réew dañuy xool ba xam intérêt na France wala déet li tax ñu ne accord bi mi ngi exister ba bu ñu jëlee Sénégal bu ñu bëggee exploiter bloc Rufisque offshore entreprise yu bëree bari dañu présenté woon pour gagner contrat bi. Total di entreprise française moo 5 cinquième ci classement bi Petrosen defoon manam dañ ko éliminer d'office ndax li mu proposé woon arrangé Sénégal société britannique BDBP, di société américaine bii Cosmos li ñu proposé moo gën mais Macky Sall dafa ni bloc boobu ko la société française bii Total lii moo taxoon Rola San Sall parce que moom dafa ni woon du signer contrat bii ndax li Total proposé arrangé wuñu ñu ne ko wala nga mu préféré sixième accord secret bi moy prioriser entreprise française yi par exemple buñu waré accorder ben marché donté am na ay réew mi wala yenen entreprise yu ko ci yenen réew té présente meilleure offre entreprise française lañ koy jox donté lañ proposé baaxul bu ñu ñun suñu réew Sénégal ni suñu économie bindo rek da koy firndeel walum télécommunication orange mooy monopole bi ak Free day société française walum ndox mi bi nan diko sango diko jëfëndiko société française bu nan Suez lañ ko denk autoroute à péage Eiffage moo ko monopolisé wàllum audiovisuel Canal Plus mi ngi def lu ko neex ci biir réew mi te du fay impôt comme ni mu waré walum consommation alimentaire Auchan mi ngi dominer marché bi maanaam ni ñu ko mën a moy sénégalais bu yeewu sango ndox bi nga sango entreprise française mo gagné marché bi bo sango ba paré fas ndéki mais wala café bi ngay jëfandikoo mën nga ko jindé Auchan te amana bénn société française moko défar péage bi ngay jël boy liggéey wala ngay jàngi société française moko gérer boo yeggee fa ngay liggéeyee connexion internet bi ngay jëfandikoo wala téléphone bi ngay wootee orange mooy opérateur bi wala free boo ñibbisee sa kër bay seetaan télé le soir amaana abonnement bi ngay jëfandikoo di suivre yenn programme yi canal moo la koy fournir lépp France ko moom bu leen doon limal fii la ñuy fanaan mais jàppale ni secteur boo mënti jël ci Sénégal ak yeneen dëkk yi nga xamante ni France moo leen colonisé woon secteur boo jël wala lu ci ëpp français lañ ko dénk lu ko waral accord secret yi ñu ak ñoom. ci walum kaaraange aussi réewum France génnewul loxom ci suñu système de défense ndax umpalewu leen ni am fay base militaire fi ci Sénégal lu yàggul inauguré nañ aéroport Blaise Diagne ben escale militaire pour soldats français rax ci doli amna ci ay haut gradé ci bir armée bi France mo len di formé ñu prêter serment ci drapeau bu France revenir Sénégal am ndombal tank yu kawé kawé ci suñu bir armée ben exemple rek la len di jox moy Mamadou Dieye France lañ ko formé mu ñëw Sénégal nek fi capitaine moo tax mosoo leen capitaine mu xarab wala anam nga France au contraire dafay défendre politique yi la France di woy dominer. mais amaguñu nag armée nga dañ France comme ni ko di France nañ fi jugee ils n'ont dégager et cetera fi problème et pourtant un débat qui. non man man gëm mm-hmm. France tey gis nga suñu réew yi. Mm-hmm. fragilité d'existence lépp loo xamante ni ay puissance étrangère la lépp loo xamante affaire français CFA lépp loo xam affaire indépendance képp ku koy wax rek nit parce que da ngay fragiliser suñu dëkk parce que réew yi ni ñu bindoo jeu d'équilibre Donc xam ne discours yi bu parce que France moo ko formé ci école militaire bi ñuy Saint-Cyr France dañoo am accord ngir ñu ñuy formel suñu doomi réew. suñu doomi réew yoo xamante ni ëllëg képp ku nar a attaqué France ñooy taxaw jàmmarloo ak yow français yi du ñu xeex ak yow déedéet ay sénégalais ñooy jàmmarloo ak yow lii il faut que sénégalais yi xam ko. beneen pàcc accord militaire bi mooy ñun suñu réew yi ñi signé accord bi amuñu droit am alliance ak yeneen réew jëm ci formation suñuy soldats mais accord boobu noonu après des dizaines d'années tàmbali na dañ am na coppite dañ ci amal. neuvième accord bi ñu ak France moy bu yeso base militaire yi ñu fi am ak suñu doomi réew yi ñuy formel dafa am luñ nane les accords de défense manam, seeni soldats mën di intervenir suñu réew yi sa yu ñom France sentir ni danger bu fi nek mais lolu borom xam-xam yi xam nañ ni bluff la ay naxaate la ndax li France di dipé intervention militaire moy ñom gannaaw ba ñu taalee suñu réew yi ba nopi ngir mën préserver seen intérêt lolu la def Mali tal ko defon ko Côte

parce que ab réew boo ko bëggee dominer dangay ngay li nga xamante ni mooy système éducation am loolu la France réussir imposé ñu benn système scolaire boo xamante nii bokk na ci li ñu gën a dell est-ce que xam ngeen ni français bokkul sax ci juróomi làkk yi ñi gën a wax ci àdduna bi boo génnee Sénégal ngay xam ne làkkum français langue bu impopulaire la mais fexe nañ ba def suñu bopp yi ne boo déggul tubaab déggoo français particulièrement doo intellectuel alors que nekk intellectuel du dégg tubaab rek bi ñu une vidéo ci mbiru éducation sexuelle ñu wax ni bu déné dañu bëgg forcer li ne ñëpp génnee séni dom ci biir école yi ndeysaan amna ko commenté Nous suñu réew am intellectuel c'est-à-dire ko koku dans sa tête ci bopam une na ni déggul alors que langue moyen de communication la français la ci suñu administration yi mais la sur le plan mondial donc ñun erreur bi gën a mag bu ñu def mooy dénk suñu njàngalay doom ay tubaab dëgg la enseignants yi ay sénégalais lañ ay patriotes directeur école yi ay sénégalais lañ ñoom itam di ay patriotes ministres yi fi mujjee jaar yëpp suñuy doomi réew lañ mais système scolaire bi nga xamante ni moom la ñuy jàngale suñu biir école yi tubaab bee ko créé ñun tëgguñu ci dara tëgguñu benn système scolaire boo xamante ni day dëppoo suñuy ara di dëppoo suñuy valeur day dëppoo ñun li ñu gëm. mën nañ ci nag yokk yeneen matière ngir mën a ibbeeku ci àdduna bi yokk ci yeneen làng pour bu ñu tukkee bañ am jafe-jafe mais malheureusement dañoo rate état boobu noonu moo ñu jural tey jafe-jafe ñuy dund lépp. onzième ak dernier accord bi mooy bu guerre wala crise amee ci adduna bi yëpp réew yi France colonisé woon te ñu xaatim bi la dañuy féete ci côté France. loolu moo waral histoire u tirailleurs sénégalais yi suñu maam yi demoon xeexle France accord boobu moo ko waral nous ñu jëlee événement bi gën a récent muy wàllu coronavirus gis ngeen ni mu demee au ñu teg ay mesures yoo xamante ni du gàllankoor secteur informel bi nga xam ne ci population bi ci lañ tënku defuñu ko dañoo topp ci ginnaaw France bu ñu décrété couvre-feu ñu décrété couvre-feu bu ñu tëjee seen école ñu tëj suñu école bu ñu choisir vaccin sangam ñu choisir même vaccin bi bu seeni cas yokkoo ñu ni ñu yokk suñuy cas lii lépp li muy firndeel mooy ba tey indépendance bi ñuy wax ci layam bëgg nañ Sénégal lool waaye xam nañ ni moomuñ suñu bopp même première dame bu France bu defee interview dimanche 20 heures première dame bu Sénégal dafay xëy lundi moom itam def interview même heure lépp pour divertir askan wi moo tax le mal est profond comme ni ñu koy waxee patriotisme dëgg mooy tax ñu jëlee fi li fi ne ndax li ñu lii ak France dafa yàgg lool. moo tax faa ñu leeral ko sénégalais yi ngir ñu xam ni mbir yi demee mën a nag jàmmaarloog moom parce que pour xeex dara faaw nga xam fi mbir yi jógee. kon jàngatu tay bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa jëf